ci arbitre sifflé na diggante ama war ñu ginnaaw Modou lañ jàkkaar lool Modou Yama écrit Jali Birama ama écrit Colobane mbooloo ndeysaan Modou Yama mbëru oustaz ndeysaan ña noonu ña ngay déplacé ama moom ngeen woon weex moo ñu wan ginnaaw Modou jàkkaar lool noonu Ama Modou Yama ndeysaan Ama Modou Yama ñu ngi bëre di dox Ama Modou Yama ndeysaan seen ko baa ngi noonu di daw Ama Moria maa ngi jëm ci kaw Ama ñu bëriwaat ñëw ci digg géew bi Moria ma ña nga ci ñaar Moria Ama Ama bu Colobane ma nga waree Colobane mbooloo ca Tonnerre 2 ca Koña 2 Modou Yama ma nga jóge jëli Birama Thior ca Baye Tafatine ca Modou Baye Fall ca Baba Jaxal ca Cheikh Bari ndeysaan ma nga noonu di déplacé wu moom Bébé Ama arbitre nee leen daje leen ngeen bëre attention Modou Yama door na ko Modou Yama door na léegi supporter yaa ngi koy tàcc moom Modou Yama ña ma ngi noonu tàcc nañ ko Modou Yama attention Modou Yama Modou Yama Modou Ama moo ñu wan ginnaaw moo ngeen ma ngeen lu weex loolu Modou Yama jokkaasante nañ Modou Yama ngi dox ci kawam Modou Yama bébé Ama attention Modou Yama la ilaha illallah ndax Modou Yama du ko daan Modou Yama war na ko ndomba Modou Yama war na ko ndomba ma ngay door ma ngay door ma ngay door ma ngay door ma ngay door ma ngay door mbaru Oustaz ba ngay door Modou Yama ngay door daan na ko Modou Yama daan na ko la ilaha illallah sam-sam bi mbëru oustaz bi mbëru oustaz bi mbëru laa ilaaha illallah xale sam-sam bi Modou Yama Modou Yama ko laa ilaaha illallah hey Modou Yama hey askurullah kasiran man daan naa ko du sama kattan du sama doole du xudadillah bi jalla jalaaluhu moo ma may mu nekk njool ba pare waaw yow nga dugal ñaari gauche na ma lu ne sam papa kii mënoo bëree ko nii ak nii daan ko. tey dañ maa dañ dañ maa yab du ma bëree nii man fi mu damay non kii may bandi man bandi laa sam laa dëgg eh xoolal maa ngi sant ñëpp maa ngi sant ñëpp di sant waa El Espro laay suma xarit Ibrahima Diallo sant waa sam-sam maa ngi sant ñëpp ñëw a jàppale ñëw Modou Ba Lat moo tax ma bëre moo jox combat bi Lat Diop Diop barki Seydina Mouhamed damaa bëre damaa bëre daan def indépendance grâce à Lat Diop moo tax ma bëre yow ah na ma gars yi jël lambu loon na ñëw tafi eh dama koy daan na ñëw boo dama pare eh lambu la pare naa maa ngi leen daawale dernier mot ci arab askuru jamia ahlu xayyi wa ahlu baax yaay askuru jamia ahlu xayyi baax yaay samsam 1 2 3 askuru hada rajul wa abi askuruhu kasiran saadani fi hada askuruhu wa askuru jami asatisa wa talamisa wal mudara askuruhum jamian sa drapeau waaw waaw